ko ci wolof ne ñoo ngi gërëm ñëpp ci teexlu bi di gërëm Kawsara eh, di am mbégte ci teew bi ci bés bu ni mel muy bés bi nga xam son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye Faye daf ko lancé woon daf ci woowoon sénégalais yi sant yàlla bi ko sénégalais yi wuyusee ndax monsieur le ministre mi ngi may wax ni ñoo ngi jot remonté ci Sénégal yëpp

monsieur Daudongo, ministre de l'environnement de monsieur ministre de l'éducation nationale Minifi. monsieur le gouverneur de la région de Dakar M. monsieur le préfet du département de Rufisque monsieur le sous-préfet de l'arrondissement lii buñ ko ça va dafa que monsieur le président de la République moom ci un Sen ñu exemple parce que il y a bëggee une ci direction da ko fa war a jiitu waaye doo toog ci bureau taal sa clim ne ko demal def moo tax moom ci boppam moo njëkk a génn tey fële ci caaro yi gis ngeen taxawaay bi askan wi génn wuyu si ko mu njëkk a symboliquement def premier geste buy wane ni fii la ñu bëgg ak askan loolu nag ñun ñu tàmm woon ñëw fii lu tax mooy am na loo xam ne problème mu assainissement ordinaire la mooy quartier boo xam ne quartier bu normal la quartier bu ñu tabax fañ ko war a tabax la waaye defuñu fa ay canalisation wala canalisation ñu fa def baaxul wala doyul wala yu mel noonu ba quartier ba di am ay problème loolu mooy li gën a yomb a gérer ci mbirum assainissement moom beneen fànn boo xam ne dañoo dem fa ñu warul woon tabax nga xam ne depuis jamono tubaab bi tubaab bi mu defee cartographie ba pare lañuy wax cadastre bi dafa ne fii de nit mën na fee dëkk waaye fii nit waru fee dëkk parce que yoonu ndox la te olof danaan ndox du bàyyi yoonam mën nañu nekk jamono sécheresse taw gi xaw néew mu dem ba fu ndox doon jaar jaar fa waaye bu taw dellu see rek ndox mi dellu siwaat ci yoonam moo tax ñu ne woon fii ak fii ak fii kenn waru fee tabax ñu gis ni Sénégalais yi ci li nga xam ne moom la ñuy wax urbanisation parce que de plus en jamono Euh, ci àdduna yëpp la nag jamono léegi kaw gi day wàññeeku nit ñi di dem ci taax yi loolu la ñuy wax urbanisation ñu gis ni ci phénomène boobu nag nit ñi bu ñu yegsee ci taax yi léeg-léeg mënuñu am ci foofu nga xam ne moo jag pour nit ñi dëkk fa dañuy dem fekk fa ñu tere woon pour ñu dëkk fa ñu dem dëkk fa loolu nag bu amee responsabilité état la d'abord ndax kër sax mur sax mur mur de clôture kenn du ko tabax ci benn fan kenn du ko tabax ci benn semaine waxuma laa kërum lëmb waxuma laa quartier am lëmb donc soo seetee lu mel ni quartier bi soo xoolee immeuble bi nekk suñu gannaaw xam nga ne lii ay weeri weer wala ay at lañ ko tabax jamono yooyu ñu ko doon tabax ñoo joxe autorisation ak ba ñuy joxe autorisation bi ndax daf leen réeroon ni fii yoonu ndox la waruñu fay joxe autorisation pour ni lu mel quartier bee nekk suñu gannaaw ñëpp xam nañ ni ñëwul rek judd ci benn fan lu ñu tabax la ci ay fani fan loolu lañ ne nag loolu dina takk mënatuñu nangu administration am code de l'urbanisme am code des domaines am les plans euh, directeurs d'urbanisme am les plans détaillés d'urbanisme am lépp ñu ne leen fii nit waru fee tabax ñu seetaan ko sàggane ko léeg-léeg sax ñoom ñooy def lotissement bi tax nit waru fee tabax loolu am na problème ndax fee quartier la mais fii nii terrain yu bi lotissement

la fa nekk ñu koy tabax nañu dem arrêté parce que état léeg il faut mu jël responsabilité bi mais doo seetaan ba musibaam ngay doog a daw naan nañu nañu an bak loolu il faut mu jeex ci réew mi tamit loolu tax ñu ñëwoon fii tey solution rek dina jafe liggéey la loo xam du ci euh, lu gàtt gàtt lañ koy def ndax foo xam ne dafa nekk ci pax wala mu ne ci kan wala mu ne woon yoon ndox wala ndox daan fa taa sax ay lac ndax Lac de Guiers mi ngi fii jege na fi. Lac Rose Lac Rose du moins mi ngi fii te bi état defee recensement gis nañ ni lu mat ñetti junni ak genn wàll lu ëpp loolu ci yu mel nii am na ci biir Sénégal te li ci ëpp nag mi ngi fii ci département Rufisque ñu ne nag dañ ci def suñuy kéem kattan ci ay programme yoo xam ne lu def la ci temps bi waaye ren ren tembe la ñu mën a def moo tax ñu dugal armée ci mbir mi moom ministère am ak ñi ciy liggéey dinañ lënkaloo ak armée nationale gas fii ben ben dañ koy waxee bassin bassin dañ koy waxee ci xanaa mbalka mu mag la voilà ben mbalka laa doon yarkatu xar yi ñoom xam dinañu ah, gas fi ben mbalka bu mag a mag a mag boo xam ne dañ koy def ci fi nga xam ne moo gën a xóote nga xam ne ndox mi bu ñëwee dañ ko essayer récupérer foofu am yaakaar ni loolu mën na wàññi problème bi ci at wi ndox moomu sax mun nañ ko jërëñoo ci yóbbu ko ci mbay mi moo tax ñu ne fii am na yeneen yu ñuy gas fii ci dag bi ndax am na dag bu ne fii ku ne dagg nag mooy domaine agricole communautaire kon kuy bay da ngay soxla ndox ndox moomu ñu doon bàyyi muy muy law di walangaan wala mu ne ci biir kër yi lañ ci mën a capté yëpp dañuy def ay bassin foofu ci dag bi récupérer ko nit ñi mën ko utiliser même bu nawet bi jeexee dinañu am ñaar ñett ñeenti weer yoo xam ne peut-être mën nañ ko utiliser pour di euh, arroser seen maraîchage la kon loolu moo gën a moo gën a bëri fi kon loolu moo taxoon ñu ne dinañ ñëw fii di lancer appel nag Sénégalais yi bëgg dëkk warul tax nga dëkk fu ne fii bu nawet bi xasee ba door am na population yoo xam ne dañuy obligé génn dem uti feneen wala ñu dem seen i mbokk ba nawet bi jeex am na ay famille yoo xam ne dem nañu définitivement ndax mëntuñ fi dëkk kon loolu ta société xaalis bu bëri lañ fi investir am nañu fi def ay millions yi millions ci kër goo xam ne mënoo fa dëkk euh, au moins ñeenti weer ci at bi loolu nag ñuy lancer appel population yi ñoom it ñu jàppale ñu ci loolu ndax président Diomaye dafa ñëw ne dafa ñëw pour bale moo tax bale boobu ngeen gis ko ci moom bale bi nag dinaa wax tey lan mooy cosaanu bale bi ndax sénégalais yi gis bale bi rek waaye xamuñu bale bi bi ñuy nekk campagne bi Bignona bi ñu paree meeting Bignona bi une heure du matin wala lu ko raw nga benn góor gu màgget màgget màgget dañ ko jàpp sax wam mat ko mu ñëw ba sës ci oto bi maa président Diomaye sëgg di wax ak moom mu ne ma neel ma ko bale bi waa dëkk bu ñuy wax jéegul mhm. ñoo daje ñaanal ko wàcc seen kaamil def li ñuy def bu ñu paree jël bale bi jox ko ne ko boo duggee pale na nga jël bale bi bale pale ba mu set na nga jël bale bi bale Sénégal ba mu set na nga jël bale bi bale Afrique ba mu set loolu mooy cosaanu bale bi looloo tax président Diomaye fonk bale bi loolu nag mooy volet symbolique waaye bale googu ñu nekk dooraguñ ko sax ndax lii defe naa premier acte rek dinañu bale lu jëm ci cet bi nañu bale lu jëm ci lu ñuy gis ci ay kër ay yoon ay caniveau ak yu noonu waaye nañu bale lu jëm ci nguur nañu bale ba mu set wicc ndax réew mi senegale yi dañoo xamul ni yàlla moo ñu sutural waaye ak ñaanu nit ñu baax ni waaye bu dul woon loolu 2023 bi ñu génn réew mi li daal réew yu bëree bëri mënoon na fi am te dara waralu ko lu dul ku ñu dénk ne ko dañu laa dénk pour nga sàmmonteeg réew mi sàmmonteeg askan bi doxal yoon nga def safaan moo xam président nga moo xam ministre nga moo xam magistrat nga moo xam moo xam moo xam moo tax boo bëggee nag bale boo yaakaar ni bale mbedd mooy moom rek lañu war a bale jumb ndax nëgëni si dem euh, euh, daaw ci bésu tey jii di premier juin nit ñi tàlluñu woon bale ak ji ay garab waaye ñi ngi doon ay lacrymogène ak ay pneu ak internet bu ñu coupé te dara waralu ko lu dul ñu ñu dénk ne leen jaara leen ko fii ñu bako fa nekk ci ay complot ak ay règlement de compte moo tax bale googu nag may dalal xelu senegale yépp lañ ci war a def nañ ko def mbir mi dina leer nañ ba ñu xam ku def ak lu mu def bu Ousmane Sonko def sénégalais yi xam bu kenen ak kenen def sénégalais yi dinañu dinañu xam waaye nak dafa am lo xam bala nga koy def da ngay ñëk balé bale ba mu set il faut nga balé justice ba mu set ndax ku ci amoon responsabilité te nek fa du mom moy ñëw jaar ci benen direction il faut nga balé palais de la république il faut nga balé gouvernement il faut nga balé fenen ak fenen ak fenen kon set setal bi set setal bu yaa lay doon

ñu wax sénégalais rek ni set setal bi lu gën a yàgg la mm. waaye bii moom lañ leen gën a soxlawe bii la ñu gën a bëgg ñu dugal ci seen loxo la ca des jafewuñu te dinañ ko def bu soobee kon ñu ngi gërëm ñëpp di am mbégte ci mobilisation bi ñu fi gis bëggoon nañ dugg ci biir quartier bi waaye gis nga mbir mi nu mu mel dañuy bañ buuxante yi ak yu demee noonu ñu ngi jéggalu kilifa yi nekk ci biir quartier bi chef de quartier bi di jéggalu euh,